dañuy ñaawlu tam mbir mi nan nga ko nan nga ko jàng. xew mooy tey euh, Bougane Gueye Dany dañu ko convoqué ci euh, fi nga xam ne mooy cyber sécurité euh, li nga xam ne am na fi kenn xamagul nag kenn motif moo tax ñu convoqué ko en tant que reporter foog naa comme ñi nga ko defee yeneen reporter yëpp moom mu daal ñëw ànd ak ñi nga xam ne ñoom mili ay militant woon ñu jógee fi nga xam ne moom mooy benn séminaire ñëw comme que équipe boobu ñoom ñoo fi jiitu woon ñu ñëw fa ñu toog di waxtaan mi dafa commencé ci kenn koo xam ne moo jóg te identifié na bu na su lañ commencé jóg di saaga euh, bi ñu commencé jóg jóg di saaga parce que ñoom ñëpp nag wax dëgg yàlla xam nga yàgg naa leen couvrir mu nekk ñu ñuy ràññee lool am na ci kenn koo xam ne euh, moom mooy maire bi di Aïda Seck euh, mu ngi fële moom mooy responsable des femmes bi nga xam ne ñoo nekk Kër Massar

ku mën a dékku président Macky Sall dékku ay nerf bi fi nekkoon dékku police ak gendarmerie du ay simple militant ñoom ñooy ñëw tey ne la fii ngay wax ak fële doo fi wax dañoo ñëw pour liggéey te fii ñu taxaw amul lenn loo xam ne dañu fay jógee Bougane Gueye Dany nag moom mënuñu ma mënu ma yab mënu ma yablu kon ay militants am duñu yab parce que xamna ko yagna ko couvrir te mosuma ko won ñak fayda lekuma xaalisam taxawaalu ma ci biiram moom au contraire moo may soxla di ma jox ay contribution ma koy dugg kon du ay militants am yu mu àndal ñoo may ne tay

te ku ci nekk oto nga jël jóge ci këram ñëw wax naa la ko léegi muy responsable des femmes mais également am na yeneen jeunes yoo xam ne man ko xam naa leen ku ci nekk xam naa sa tur dinaa def plainte mais Bougane ci xam laay plainte parce que moom moo leen mën a identifier moo mën a identifier mais gis nañu tamit est-ce que yaa ngi doon xaar boo egsee fii di nga fi fekk nii waaw xam nga toppandoo moom dafa bari façon ñoom dañ fu mu ne dañuy def dañu mel ni dañu bëgg comme ni Pastef daan def di taal pneu peut-être bu ñu woowee seen leader wala ñu xam dañ koy def mais safewul parce que déjà ñoom bariwuñu amuñu stratégie lii yëpp ñu koy xaar ndax te ngeen gënoon naa metti te teewul dem nañ fi lii moom mooy tax ñu découragé fi ñu taxaw pour ñëw ut si information fi dañu taxaw di leen xaar. lan nga jàpp ne mooy motif song bi ñu la ne ah peut que dañoo tiit rek xam nga bu ñu woowee sa leader mu gàddu saagam ñëw te mën na mën nga xam ne peut-être doo ko gisaat mën na am loolu itam tiitaange voilà ma ci lépp sa kanam la amee.